am na ñu ko nangu waaye am na ñu ko nanguwul waaye far yàlla dogal képp ku mës a yónni jaar nga ci sàmm képp ku mës nekk ab yonent jaar nga ci sàmm moo tax ku tedd ko wax ne maa baasa allahu nabiyan illa wara al yàlla mës a yónni benn yonent te sàmmul ak jur ñu ne ko wa anta ya rasulallah ba ci yow sax ndax sàmm nga mu ne kuntu araaha ala qararita li ahli makkata dama daan sàmmal waa màkk nekk seenub sardi ñu dema fay gis nga kon lislaam dafa fonk liggéey waaye yëmu ca dafa sax seet liggéey yi nga xam ni dañu ko doon xeet démb ak bërki démb ca ay maam mu fonk ko te na ma ko fonke mooy mu xam le ne ku yàlla mës a yónni mos ngaa jaar ci sàmm kon lislaam xeebu kenn ci yéen jël ak buum euh, dem ca àll ba taxani jaay ko faj ci ay soxlaam moo gën muy laaj nit ñi bu ñu ko joxee moo gën bu ñu ko xañee nii moo gën mu ne la an yaxuza ahadukum xablahu fa yati bi xasmati xatabin ala dahrihi fa yabiicuha fa yakuffu llahu biha wajhah xayrun min an yasala annaas atuuhu aw manacuuhu kon gis nga sàmm ni ko ñu bari xeebe lislaam wane ne ñi yàlla yónni sax jaar nañu ci gis nga taxantam ni ko ñu bari xeebe ku tedd ki wax ne nga jël sa buum dem taxani ba am saw say jaay ko faje ko sa soxla moo gën ngay tàllal loxo di laaj nit ñi buñ la joxee nga taxani jaay faj soxla moo gën bu ñu la xañee tam nga taxani jaay faj soxla moo gën kon lislaam xeebul menn métier moo tax ñu baax ñépp dañoo jaar ci liggéey xam ngeen ni yontu yàlla Moussa alayhi salaam euh, ba mu dajee ak ñaari xale yu jigéen ya bañ yóbbu ko ci seen baay muy Shuaybu alayhi salaam ba mu waxtaanee moom ba juboo dane ko soo ma sàmmalee day ma may la soxna soo ma sàmmalee juróom-ñetti at wala sax fukki at ba la soobee sama ñaari doom yi ma may la ci kenn Moussa daal di nangu daal koy sàmmal fukki at yàlla mu may ko doomam gis nga kon ñi yàlla yónni xeebuñu mel ni métier yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam sàmmoon na yontu yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam tam sàmmoon na euh, Ibnu Abbas nee na yontu yàlla Daawud euh, daraan dafa nekkoon tëgg ab tëgg la woon yontu yàlla Daawuda ab tëgg la woon yun ci yàlla aadama ab baykat la woon yoon ci yàlla nuux mën nga ne lawbe la woon ku doon yett wala euh, euh, ministre bu doon yett ak a daaj moom la woon yun ci yàlla Idrissa euh, da doon ñaw nga xam ne kon yàlla yónni dañoo amoon ay liggéey yoo xam ne moom lañu doon jëfandikoo di ci daan sa doole kon liggéey ndeke benn bu dagan mëtt xeeb ndax boo ci xeeb rek am na ko baax koo xam ne mos na cee jaar kon benn liggéey bu dagan mëtt xeeb liggéey bi bi nga xam ne nag moom lislaam da koo tere moom lu mu woom woom bul ko naw bu ci am soxla waaye bi lislaam bëgg moom lu mu ñàkk-ñàkk solo ci say bët xamal ne xeebuwul fa yàlla ndax yàlla du xeeb lenn lu leew ndax inna allaha uh, uh, tayyibun laa yaqbalu illa tayiba yontu sall nee na yàlla dafa sell moo tax lu sell rek lay nangu te lu lew mooy lu sell liggéey boo gisee mu am solo mooy lu bare ci santaane yi diine yi boo liggéeyul ba am astuur doo ko mën a jëfandikoo ndax da am na santaane yoo xam ne sa jëmm moo koy def sa yaram lu mel ni julli sa jëmm moo koy def waaye xam ngeen lu mel ni aj màkka sa jëmm ak sa alal ñoo koy def lu mel ni azaka sa alal moo koy def kon am na jaamu yàlla yoo xam ne alal moo ko mën a jëf waaw boo dul liggéey di faste xànc ak moroom ja ba am astuut soo ko deful jaamu yàlla yi nga xam ne alal moo koy def kon ana noo koy jëfandikoo kon doo ko mën a jëfandikoo te loo xam ne bu sottiwul say warteef du sotti day soppi ku warteef moom la ñuy wax ci usul naan maa laa yatimmul waajibu illa bi fa huwa loo xam ne su antuwul sa warteef du mën a antu loola day soppi ku nekk day mujj nekk nekk warteef te ku liggéeyul doo mën a joxe asaka ndax nisaab doo ko am ku liggéeyul màkka du la war doo mën a joxe dem màkka ak yeneen yeneen kon nag liggéey day nekk warteef kon am jaamu yàlla yu bare bari ndekke soo dul liggéey doo ko mën a jëfandikoo kon ndekke aj màkk farata la joxe azaka farata la waaye kon ndekke dem liggéey farata la moo tax sunu sëriñ di ku baax ki wax ko ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami sàkk lu lew farata ci bépp jullit te amul sikki sàkk wax na fu bare bari nag di fa tudd sàkk lu leew wajtahidu fi talabi alxalaali fa huwa almuqarribu li jil jalaali na ngeen farlu ci sàkk lu lew ndax lu lew mooy tax ngeen mën a jege seen borom waxaat ne euh, waxaat na fu bare bari wa xuliqa albadanu xiinama futir li kasratil xidmati fii ma qad umir yàlla bu mu sàkkee jëmm da ko sàkk ngir li ñu ko sant mu man say kër kër yi kon gis nga ne euh, sàkk lu lew farata la te liggéey dafa am beneen njariñ mooy doomu aadama dafa yomba euh, dafa dafa bëgg noflaay ker dafa yomba ker doomu aadama suñu ko bàyyee ci sagoom du faste xànc ak moroom ja su yàggee day ker te su keree du amal boppam njariñ du amal ay bokkam njariñ du amal sax aw xeetam njariñ waaye soo dee kër kër nag di liggéey day tax tayel gi nit baaxoo rawatina nit ku ñuul day daal dañ ci yow ba jeex sëriñ Bachirou mi ngi koy wax naan sëriñ bi bi mu wootee yoonam wi dafa daal di santaane liggéey ndax nee liggéey bi euh, day waral euh, li yeta xàllal alkasalu almawjudu fi qawmihi wa huwa aslul fasaadi diinan wa dunya nee na liggéey day tax tayal gi ci jëmm yi day dañ te nee na tayal day yàq àdduna day day yàq diine moo tax sëriñ bi daan santaane liggéey kon ku la gën a farlu ci liggéey moo la gën a sawar te moo lay gën a njaxlaf te diine ci sawar la soxla ki njaxlaf la soxla moo tax kon liggéey nekkee lu am njariñ la te itam ki yaramam xas Euh, ki jaar ci daara ñu di ko tàggal ci liggéey ba mu tàmm ko day ñeme coono lu ñëw da cay mën a wéy waaye ki nga xam dafa dafa ker nanguwut a sonn nanguwut yëngutu day tayeel lu néew lu ñàkk solo mën na ko sonal moom la sëriñ bi naan fadaatan wa raxatan lan yuusira shaxsun araada an yakuna muusira nee na tayeel ak noflaay ak loxoy neen képp ku bëgg a tekki àdduna alaaxira doo ko def kon nag ndekke kon liggéey lu am solo la liggéey itam soo ko dee def muy liggéey bu dagan mooy tax nga am lu lew te nit ki li muy am ci wërsëg dafa war a xam ne su ëllëgee yonent bi nee na bala siqi tànk suñ borom dana ko laaj ñeent li nga amoon ci àdduna ci alal faaw ñu laaj la ñeent ana foo ko jële ana foo ko jële ak ana foo ko def loolu bokk na ci li ñu lay laaj sa dund ana foo ko jeexal saw yaram ana noo doon def ba mu màggat waaye li li ma ciiteel mooy sa alal foo ko jëlee ak foo ko def loolu ma ta bàyyi xel la kon képp koo xam ne da liggéey liggéey bu dagan di sàkk lu lew su ëllëgee bu ñu laajee laaj boobu da yomb tontu lii nga am ci àdduna foo ko jëlee nga ne dama doon bay te su ma amee nisaab damay génne azaka wala dama doon commerce waaye daanaa joxe azaka wala dañ maa jëloon may liggéey ñu di ma fay weer waaye su ma dencee lu mat nisaab at ren ba déwén dama joxe azaka da yomba tontu waaye boo dee yëngatu ci loo xam ne sunu borom da koo tere su ëllëgee buñ ne la li nga amoon foo ko jëlee ana looy tontu boo fexee tam ba am lu lew ba noppi di ko fooyee di ci def lu xaram buñ ne la li nga li nga doon am ana foo ko doon def ana looy tontu. kon ndeke liggéey ba am lu lew day tax su ëllëgee euh, buñ lay laaj say laaj day yomb say tontu day yomb loolu nag jar na kon liggéey ba toskari moom la yonent bi naan lan tazuula qadama abdin yawma alqiyaama xata mooy wa an maalihi min ayna ktasabahu wa fii ma anfaqahu li nga am ci alal faw ñu laaj la foo ko jële ak foo ko def loolu nag laaj la boo xam ne nit ki war na koo waajal ngir su ëllëgee tontu la mën a jàppandi mën a yomb kon ndeke loolu rekk jar na liggéey ba am lu lew liggéey ba am lu lew dana jàppandal santaane bi yàlla boo xam ne wàccul kenn daanaka muy lan bérul waalidayni waajur xàqam dafa diis ndax ki nga xam ne ba nga mënugul dala doon manal nga dem yow ba man man sa bopp moom mu tële danga war a fay bor te soo ko seetaanee su ëllëgee sa borom dala koy laaj dama ne waajur dala manal bi nga tëlee kon boo demee ba man war ngaa fay bor te waajur sax kenn mënu ko fay bor ndax waajur woo laajoon yaag sa doom koo ci bëgg-bëgg mu jëkk a faatu danaan su ma sañoon damay faatu bàyyi fa sama njaboot waajur yëpp laa wax da ngay bëgg faatu bàyyi sa njaboot da ngay bëgg sax loo am sa njaboot ñoo la koy defal fi ndool mag mu dem màkk bu sañoon soo ko laaju danaan sama doom moom yóbbu màkk bu dee kër sama doom moomu tabaxal kër doomam defal ko moo ko gënal mu defal boppam ndax mooy sagam muy mooy cër bi ko yàlla jox kooku nag boo dul liggéey ne yàcc rek doo fas xànc ak moroom ja doo ko tane te koo tanewul doo ko dimbale te danga ko war a dimbale kon ndeke waajur képp war naa tax kenn ku nekk ci tuut tànk yi ak ndaw ñi di sonn di fas xànc ak moroom ja ndax mu jëfi santaane bi yàlla ci waajuram njaboot nag kenn ku nekk ñaan nga yàlla samp kër te boo sampee kër ñaan nga yàlla am njaboot te njaboot gi nga am boo dul liggéey dañu tumuranke te njaboot gu tumuranke yàlla dala koy laaj kullukum raain wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi njaboot gi seenub dund ak seenub koddaay ak seenub yar ak seen lépp dalaa war boo ko deful ëllëg sa borom dala ko dala koy laaj waaw ki ne yàcc yaacaaral nag topp keppaar yi rek ak ker yi nanguwute liggéey wala muy tàllal loxoom di laaj njabootam bu ñu tumurankee su ëllëgee dana ko digaale ak boroom kon ndeke liggéey ngir mën a taxaw sa njaboot rek jar na nit ki di kër kër yi ba toskari te sax di liggéey di toppatoo sa njaboot la la nga cay am ci tuyaaboo kenn xamul nu mu toll xool xadis bi yonent bi nee na innaka ma tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajha allah illaa kaana laka biha sadaqa ma luqma tadxaha fi fami imraatik nee na loo dépensé ci sa njaboot danga koy am yoolub sarax ba ci dépense bi ngay jox sa soxna mu di ko togg di ko jëfandikoo kon boroom kër na xam ne dépense bi muy jox soxnaam mu di ko togg njaboot gi di ko jëfandikoo da ciy am yoolub ku sàkk sarax sarax da ciy am yoolub sarax kon di liggéey di sonn ngir taxaw sa njaboot rekk war naa tax kon nit ki di liggéey ak lan am na bàkkaar yoo xam ne dara mënu koo effacer dara mënu koo far lu dul di kër kër ngir sa njaboot julli dana far bàkkaar dëgg la koor dana far bàkkaar aj dana far bàkkaar dem jumaa julli ajuma dana far bàkkaar diggante ñaari àjjuma yi waaye am na bàkkaar yoo xam ne yonent bi nee na alayhi salaatu salaam kër kër ngir njaboot képp moo ko mën a far am na bàkkaar yoo xam ne tam doxuk bokk rek moo ko mën a far nee na euh, min azunubi zunubun laa yukaffiruha illa alhammu fi talabil maisha am na bàkkaar yoo xam ne dara mënu ko far lu dul ngay kër këri ak a dang-dangi ngir loo jox sa njaboot kon ndeke kër këri ak dang-dang ngir njaboot